bismillahi arrahmanirrahim am na mag mu masa faatu ci njaareem sëriñ tuuba xaadala wala maxtaar loo wax ni nañu ma xoolal fu mu toll ci man ñu ni ko bàyyi na fi aw fas akub lal sëriñ bi ni lu bokk ci sama liggéey bi moo tax may wax ñu ni ko bàyyiwu fi dara lu bokk ci sa liggéey bi sëriñ bi ni leen bu ngeen demee ngeen jaay fas wa seet ku rafet loxo ngeen neexale ko ko mu bindal ko fukki bayit ak ñaar ci sama xasida yi ngeen moomale ko ko bala ñu koo denc ba loolu amee Sëriñ Tuubaa xaada lawoo law maxtaar lawoo ni leen li ma def xanaa jaaxal na leen ñu ni ko waawaaw sëriñ bi ni sama xasida yi lu ci waay bàyyi gannaaw am lu mu néew néew bis bu faatoo ba ñu dugal ko ci biir bàmmeelam lu ma gaaw gaaw danaa fekk la ci moom ñu def ko ba noppi siiw na la shakka fi kawni bi lada rabbi junuudan minhu sapat xalada sëriñ bi nee na sikkul moom ni ay mbindam ay kuréel lañu fa yàlla subhanahu wa te loolu mooy ay jëmm lañ ba tey danañu xam ci nettali bi ni jaawattu daa am darajey sëriñ bi tudd ko ci ko faatu waaye xasida yi yépp ñooy texeel wallahu alam am na ku masa yet Sëriñ Tuuba xaadalawoo la maxtaar lawoo am mbind mu di ko xool ba mu yàgg mu ni ko xanaa dangay roy Muusa wér na Sëriñ Muusa Alima Gueye radiallahu taala anhu la koy wax fekk na noonu nii la deme ndax da ko mottalil am njàngam dana nu leer lool ni sëriñ bi fonkoon na mbind mu rafet wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laa maxtaarlawoo am na ñu mu masa binduloo ab kaamil ba ñu ko andee mu ni leen xoo anfusakum dem leen bindaat beneen ba ñu ko bindaatee ba andi ko mu ni leen wa ahlikum naara wér na dañuy daldi xam ni bind du yam ci kiy bind barke bi day jàll ci ay doomam ak i sëtam ba ci ay soppeem lu mu gën a bari barke bi di gën a tasaaroo إن الله لا يظلم مثقال ذرة والله أعلم Sëriñ Tuubaa xaada la wala maxtaar la am na ku sant waar ku mu masa wax bindal ma kaamil bu doy waar ma wutal la ajjana ju doy waar mu dem bind ko wér na Sëriñ Tuubaa xaada la wala maxtaar la mas naa fekk Sëriñ Muusa Halima radi allahu taala anu fa muy binde feli sammin mi serigne bi ni ko moussa li lu mu ni ko ay fel la serigne bi ni ko feli kat dañoo war a dem wérna nee nañu ca booba feli kenn gisatuleen ci njaareem gépp wallahu alam serigne ibra binta silla radi allahu taala anhu bi serigne touba xaade loola moxtaar loo di dem ci géej gi yóbbaale na ñeenti kaamilam yu mu ko bindal siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar mas naa wax sëriñ Ibra Binta radiallahu taala anu te ana sab mu ni ko ma nga fa sëriñ bi ni ko bu ëllëgee booy ñëw indil ma ko mu ànd ak ku ñuy wax sëriñ Mbàkke Silla sëriñ bi xaadalawoo law maxtaaraloo ni ko kii mooy sab mu ni ko am na ku ko mag waaye day jigéen sëriñ bi ni ko kookee laay wax ba mu ko andee sëriñ bi ni sunu borom dama xamal ni dañu koo war a jox ma sàmm kan ni wér na doom jooju moo tudd maam soxna si la radiallahu taala anhuma wallahu aalam ñi ngi ci nettalit juróom benn fukk bi ak juróom benn sëriñ tuba xaadalaho law maxtaar laho mas naa wax sëriñ ibra bint silla radiallahu taala anu anasa doom ja ja mu ni ko ma nga fa sëriñ bi ni ko booy ñëwa ti àndaale ko wér na mas nañoo wax sëriñ tuuba xaadalawo law maxtaarlawo ni ko ibra binta buy bind day xoos xëy ne day jaawale mooy maxnaami wala muy waxin wu xewoon booba dani ko daal day xoos sëriñ bi ni xoos daa di koy woo ni ko bindal ma kaamil bu gaaw ba mu ko andee sëriñ bi ni ko ni mu nekke ci lawhul mahfuz noonu nga ko wàccee ci kayit gi siiw na sëriñ tuuba xaadalawoo law maxtaaralawoo mas naa wax sëriñ masamba kan ni radiallahu taala anu loolu yàlla def dama bëgg nga dundal ko muy càng gi mu ni ko dañu koy soppi nga doon sang bi ma doon jàmbi sëriñ bi ni ko déedéet daa jël kaala gi mu yoroon moom sëriñ masamba teye ko ngir loolu siiw na Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laaw maxtaar lahoo nee na Muusa Halima mbindam leer da ce nekk boo ko nee jàkk jàkkaarloog leer gi siiw na Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laaw maxtaar lahoo nee nañu mas naa jox ab buur ci buur yi ab turki ngir mu koy jilloo digal ko itam ay salaatu nabi yu muy def cafan fan yooyee faatu siiw na mel na ni lajjoor la woon yu mel noonu li tax sëriñ bi di ko def mooy sàmm li doxoon digganteem ak sëriñ moor anta sali radiallahu taala anhu wallahu alam ni ngi ci nettali juróom ñaar fukki bi ak benn naar bu ñuy wax sajjaada radiallahu taala anhu moo daa jiite naafile ca njaareem da daa jóge gànnaar bu weer wi jeexee mu dellu ci ndigalu Sëriñ Tuuba xaada lahoo lahu maxtaara lahoo wér na lool bu nu fàttani ba muy nekk sànnoosi moo daan naafila moom sëriñ bi ànd ak mbooloo mi wallahu alam sëriñ Tuuba xaada lahoo lahu maxtaara lahoo mas naa wax demal woon ma Moodu Maxtaar Mbay ñu dem woo sëriñ Mut Saxiir Mbay sëriñ bi ni Moodu Kabir laa wax ñu xam ni kii mooy Moodu Saxiir wér na am na lu mat fukk ñu daan rootal Sëriñ Tuuba xaadalahu allahu maxtaara lahu teewul léeg-léeg mu ni leen bërëb sàngam ndox nekkatu fa wér na Sëriñ Tuuba xaadalahu allahu maxtaara lahu nee na doomi soxna yi ci réew mi madu muxtaar mbay laa ci njëkk am ceddo yi ki ci njëkk a tuub ci man tuub gu ñu nangu mooy birima koddu mareem radiallahu anhuma wér na fii jumaay ji nekk lu mel ni ab mbaar moo fi njëkk nekk ba ko kilifa googee séenee yónnee ni ko na daa deñ sëriñ bi ni ko waawaaw waaye sampag rokkas lay doon wér na rokkas xëy na day gën saxla sax bëgg a wax wallahu alam Sëriñ Tuuba xaada lahoo lahu lahoo bi mu nekkee Mbàkke Kajoor am na bis ñu ni ko buur sàngam mooy yëglu sëriñ bi ni bismillahi buur bi tàggoo bi ñu tàggoo maag moom moos ak tàggoo bi mu delsee loolu buur bi rekk a ko man day mel ni da doon ñëwaat ngir naagu gu mu naagu ci ak dundam wallahu alam امنا بور بو سيرن توبا خاد له الله مختار له ما سا wax ni ko tubaab yi fi nekk seenu nguur jeexagul ci réew mi ku fi nekk danañu la sant nga def ko mba nga génn abal len siwla inna kull shayin qalaqnahu bi qadar wa ma nunasiluhu illa bi qadarin maalum wa kull shayin indahu bi miqdar wallahu aalam Sëriñ Tuuba xaada lahoo law maxtaara lahoo mas naa woo soxna Fatija doomam radiallahu taala anhu ni ko maymunatu yóbbu ko daaru moti ba mu dikkee ni ko dem nanu ba ñëw sëriñ bi ni ko jërëjëf wér na sëriñ Tuuba xaada lahoo law maxtaara lahoo mas jox sëriñ Ahmadu Tasrif Sugu radiallahu taala anhu ak ginaar ni ko toggal ma ko te bu ci def kaani ba ko sëriñ bi tiimee ni ko def nga ko ni ma la ko waxe woon mu ni ko waaw sëriñ tuba xaadalawo laaw maxtaarloo ni ko li tax ma lay wax bu ci def kaani day wàññi bàkkaar te amuma ko siiw na ñu ngi ci nettali juróom ñett fukk bi sëriñ aafiya radiallahu taala anhu mas na ànd ak doomam ñëw ci sëriñ Tuuba xaadala wallahu maxtaara lahoo bi mu toogee sëriñ bi romb ko fop ak gaal teg fee ñëwaat fobaat ganeen gaal gu mujj ga da ko doon diri ndax day gu mag bi mu noppee toog ni bismillahi ana kooku mu ni ko man la afiya sa doom ji moo bind kaamil ma ko doon andil sëriñ bi mel ni ku ko këf taf ko ci ab dëndam tegaat ko ci suuf ni kii fa mu nekkoon seytaane sori na fa ñetti yoon daa di dindi kaala tibb ci xaalis bi def ca tibbaat def ca ni nañu ci suturaal yaram wi Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar lawoo mas naa wax maam Ceerno radiallahu taala anhu war ngaa sant yàlla ndax am na ñoo xam ni seenub yóbbal fii ci adduna lañu koy lekke yow nag lekkoo sab yóbbal siiw na maam Ceerno radiallahu taala anhu mas naa bokk ak Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaaralawoo ci ndab ni bismillahi Xaalid ibnu Walid sëriñ bi tey ay loxoom ni ko loo ci jublu mu ni ko dañoo wax ni loo ko lekkaale mu rees sëriñ bi ni ko bu ngeen waxee bismillahi sama tur wi rek la yàllay diglu siiw na lii damay nurul lu yàggoon ca jamono sëriñ moor anta sali radiallahu taala anu bu nu amee dara ci ak seetlu xam ni daanaka turu sëriñ bi mooy ismul ahsam dara mënta jariñ bu ci àndul dara mënta lor bu ci àndee képp ku am yaqin ci loolu doy na ko ci lu muy tàmbali lépp ak lu muy dugg ku amul gëm-gëm bu wér nag mën ne taxoo la ko doy yal na nu yàlla may ñu doyloo sëriñ bi ci lépp yal na nu yàlla may ñu yem ci moom bu wér faww wallahu aalam sëriñ tuuba xaade lahoo law maxtaar lahoo mas naa woo ñi ñuy tudde ay mbokk ci moom am koo xam ne daa ne jublu penku sëriñ tuuba xaade lahoo law di wax ba mu yàgg mu ni diw da nga ci li ñuy wax am da doyal sëriñ Masamba Kanni radiallahu taala daw fëgg ko ni ko mbàkke musul sax bay bay kiilu euh, kiilu xëy na mooy doylu baya boo fekk ko ci nii mu mel dimbali ko siiw na ki defoon loolu yi mas naa wax lii ñuy def bala ma cee ànd dama koy gëstu ba gis daa di génn wax sëriñ Muxtaar Kanni radiallahu taala anu li tax may dem yow képp laa koy wax ñi ko fii may dem bu ma fa ndawul Sëriñ Tuuba xaadaloo law maxtaloo fekkee ma xam ni mbir mu ñuy seet mi ngi fi daa di génn njëreem gépp nëbbatu fu làqu naka mu dem Sëriñ Tuuba xaadaloo law maxtaloo yónnee di ko woolu kenn gisu ko sëriñ bi ni fu mu mën nekk nañu ma ko wool ba mu ñëwee sëriñ bi ni ko xaasim habibullahi maag yow ba foofu mu ni ko man kay nee naa nërëm wér na lii danuy fàttali la xewoon diggante habbas radiallahu taala anu ak yonente bi salallahu taala alayhi wa sallama bi alii ginnaaw xare badar su ko defee mën na nit ñi ñu tudde ay mbokk li ci ëpp kuy woote moo xam yonente la wala ku yàllay wooteloo ñoo lay mujj nangul li ko waral itam mooy gis gi ñuy gis seenug tolloo lu mel noonu itam moo tax kiimaan yi di am fi ne Serigne Touba khadalo la maxtaaloo lii mu feeñal bu ko defutoon ki du mën am yaqin muk shawahidul haqq la taxfa ala ahadin illa ala ahadin ishqaahu irtasama xaasal fuaadu ama wallahu alam